en fait euh, li ma taxoon may euh, le premier victime bu si manifestation bi ñoo bokk village Cheikhouli suma ginnaaw ko la dëkk te en plus bu ñu bu ñu si manifestation bi amoon na suñu benn xarit bu ñu tuwoon Badja si tàngoor te loolu moo métti woon en fait amoon ci kaw mais dama ñëw ba ba ci rond bi gis ni que fii nii dafa nekk monument bi nga xam ne jàmm la te ko xam. Casamance dèjà soxloo sax bi ñu expliqué moo taxoon ba ma ñëwoon ma xool boobu fekkoon na policier sax ñu ngi doon waaj a tiir mais dama risqué ñëw di yëg yëkkati drapeau pour lancer après wane ni que wane naa ma dañoo sonn trois jours nga xamante ne kenn mënu am jàmm te loolu daa war a jeex loolu moo taxoon ma yëg di lancer message bi. comme d'habitude ah ni ma mel noonu laa mel ni ma ko dundee aussi. certes am na changement gars yi dañ dañ ma teg star ñu naan di yaay star bi mais man dañ siy gis que toujours sur la même personne changé wu ma mais partagé lépp ak gars yi maa ngi dund sama dund normal quoi amuñu amuma stress amuma dara parce que juste fierté rek fierté ndax euh, je peux dire que après image yi ba mu jàllee gis naa ni que fu ne gars yi dañ koy wane te. am na ñu ma naan ni am daa am sax ñu may naan euh, euh, grâce à man loolu jeex manifestation jeex am na ñu ma koy wax mais man dama jàpp ni que lu waroon a am rek ndax bu doon man kese kese kese euh, gëw moon ñu loolu dinaa ko mën a def mais dama gis ni que xëy na peut-être yàlla moo ma nekk rek tànn tàmmuma si mbooloo boobu noonu nekk foofu mais keneen mënoon na ko def mais xëy na man yàlla ci ma la ko tuddee rek moo tax bon comme d'habitude rek nay euh, gouvernement bi xool ni muy jàppalee jeunes ndax boo gisee loolu lépp am euh, Sonko la mais boo xoolee ba bi ñu ci bëri duñ moo leen tax a jóg liggéey moo amul xëy ñu gontu ñu yaa plus euh, gars dañoo dem ba sonn damay lance appel bi nga xamante ni na gars yi xoolaat ni ñu taxawalee jeunes yi jeunes yi mën a liggéey bon juste nañ ma jàppale parce que man aussi man ndaw laa damay xëy maa ngi nekk si benn liggéey bi may jàpp mooy restauration ñaari laa def pratique commandé euh, pâtisserie ak cuisine ñaari rek laay def te booba léegi bon yàgg naa nag cheminé ci àll bi xarmat mais maa ngi ciy combatté incha allah te sant naa ci yàlla maa ngi ciy sutural ndànk-ndànk. non ñun départ bi ko woon demee ñu a man ba ma ñib si laa leen ne tey def naa ni yëg naa ci monument bi xam nga après ba ma paree toog toog seetaan te dañuy gis image bi Sen TV def ñu daan jàpp Sen TV ñu gis image bi ñu nekkoon dégg la mais après gars dañ ma daan woo partout ay appel rek laay recevoir di ma félicité mais sinon suñu waa kër moom amuñu problème boobu noonu. waaw di leen masaw rek parce que xam nga manifestation mënoo contrôler ful képp kuy manifester am na ki nga xam ne day ñëw par violence kenn nit ñëw par pacifique donc pacifiquement donc am na ñi nga xamante ne moom. doy na daal ñun daal franchement xanaa di leen masaw rek métti na bu ñu sañoon du demee noonu buñ sañoon Sénégal du demee noonu mais xam nga rek toll nañ si ay moments yi nga xam ne mënatoo contrôler kenn moo waral li yëpp am damay lancé ñoom nag nañu xam ni que jeunesse ba jeunesse bi xam ni que bu ñu yàqee Sénégal la ñu yàq buñ donc yéen ñi da ko fi jarul di dem ba ñu yàq yéen ñi bon certes euh, gars nañ ko xalaat sax dinañ ko xalaat sax man personnellement man je peux dire que deux pour yàq dama demoon juste pour manifester wane ni ma métti rek